mais wax président Macky Sall duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg kenn mënul nangu li nga bëgg suñu histoire moomuloo ko da nga ko fekk dakaar moo la mag moo ma mag moo ma mag suñu waajur yi Rufisque moo ñu mag les quatre communes kay xam ngeen ni Saint-Louis Rufisque ak dakaar la woon président lu ñu nangu nga jël suñu histoire xotti ko ñoo bañ loolu projet boobu fa mu fa ngeen ko jëlee delloo jëleen ko fo waa dakaar duñ ko nangu waa Rufisque duñ ko nangu mu ngi mel ne nga yow woon di Saint-Louis day tas kon waa Saint-Louis duñ ko nangu la vieille ville pour lan président joxal cër ñi la fal waa Dakar ci lañ bokk te Dakar nag kenn mu leen néewal doole te déwaloo doole Sénégal nag mooy la capitale du Sénégal comme ni ko Kouthia waxee maire de Paris bu doon ñëw Dakar ti Dakar dekkatul ñu ne na maire Medina dem teel di jóg wala wala gouverneur kooku du naw leen pourtant Paris bëri na arrondissement ma ban Medina Paris soxna si Medina Paris fa la dëkk ñaata arrondissement mu am Paris plus de vingt arrondissement mais dafa tax ñu na Paris du amati seizième mooy am septième ak huitième troisième quatrième premier arrondissement dix-septième arrondissement dix-huitième arrondissement mais da dix-huitième fan nga dem Barbès fooy dem Château Rouge fooy dem Poissonnier Doudoville mais non y a Paris ville lumière donc on dit Paris la capitale du monde les Champs-Élysées nga tëbu tëb nga tëb Dakar Dakar boulevard Dial Diop boulevard Charles de Gaulle boulevard de la République Dakar Lamine Gueye Dakar Samba Gueye Dakar Pape Diop Mamadou Diop Khalifa Sall Dakar Soham Wardini mais nga yeewu rek histoire Dakar disparaître quoi lu ñuy wax léegi Médina Sicap Mermoz Ouakam Yoff mais ça c'est pas sérieux Macky dellu si ginnaaw lii du mun a jàll ci waa dakaar rek ñu ngi la yëgal ni pesum kanam borom a koy fajal boppam waa Dakar ñoo di sax ñoo di ko du nangu waaw bu laajee ay marche ci jàmm te ko ci yoon dinañ la woon ni lii nga bëgg a def bu la neex nga defi ko fatik mais fii mënul jàll mais man bu boobaa may nekk avocat Fatick du ma nangu Fatick di jàll parce que Fatick histoire la aussi ville chargée d'histoire président bàyyil li nga bëgg def mu non non dafa ñaaw mu du non non du munul dem lii kooku wax bu ne waaye lu président lan moo ko dal mais quand même ça c'est ce que je c'est l'inacceptable et l'inqualifiable